mbokk internet yi ñu ngi leen char bu baax baax di leen wax ngeen dal jàmm sur le sport 221 kuy gan ci page bi ñu ñaan rek nga abonné nga activer cloche bi bu leen di fàtte di liker vraiment eh, c'est très très important bu leen neexee aussi di bàyyi seen ay commentaires. xibaar yi koy tàmbali ak ñeenteelu bëccëg bu qualification mondial 2026 zone Afrique ci résultat ñu mën kat. Congo bien moo doon dalal Togo moo koy mujjee daan benn bal ci dara ek nag Sénégal comme ni nga xamee ci poule B boobee mu am ndam bu am solo devant mu Mourabitoun joonte boobee dinañ ci ñëw Eka ki li nga mooy match ala yi la grande surprise France Canada ay été tenue en échec par Canada 0 bi partout comme niñ ko fësalee ek nag li ngeen mën a jàpp foofee mooy que tiifi bi nga xam ne moo waroon teg masi boobee bala dafa am quelque retard ek loolee nag neexul dara les amateurs de foot kookee di Antoine Griezmann bi nga xam ne le mi gon ci feuille de match bi en tant que capitaine Kylian Mbappé ma ngoon ca bamba moom kat dafa laissé bras sam Olivier Giroud bi nga ne boobee moo newoon dernier match en France avec l'équipe nationale des Télécolores et que ba muy génn ak nañ ko jàppale numéro 9 boobee nag doxal na kat match bu mujj sur le sol francais comme niñ ko fësale. Frenkie de bi bi dafa amee woon gaañu gaañu jàppaleen bu baax ñu woolu ko avec les Oranges Coman moo def lu nu jàppaleen nag moom ñëwaat na à l'entraînement collectif ginnaaw gi ba mu amee gaañu gaañoom boobee Thomas Müller mu ne nag Allemagne. vraiment ñoom gëmuñu ay superstar ñoom kat lenn dongkat moom la liggéey mooy ko wàllum collectif loolee mooy tax doo gis benn wala boog raana ngay gis Allemand mu jël Ballon d'Or nekk sax lu ni mel collectif boobee mooy tax am na ñeenti étoile seen ab mayo kon loolee mooy seen ab esprit indirect âgé de 17 ans jàpp leen bu baax nag. moom kat voilà saay bu duggee kat dafay def différence loolee la mujjee def seen joŋante bi ñu amal contre Mexico match xaritoo boobee nag mu dugal à la quatre-vingt-seizième minute ñu daan 3 buts à 2 kon ni ñu ko fësalee mooy que kat. boobeekat mooy ñetteelu biwoom ci ñetti match yi mu doxal yi mujjee doxal ek ki nga xam ne moo bal boobee mooy Vinicius Junior ci làmmiñam mu nekk dafa bëgg gañe lii nga xam ne mooy Copa America ndax kat mosugul gañe raaya ak waa Seleção mooy ko Brésil kon ci Copa bi loolee mooy mbébétam ek nag beneen naataango Brésil bi benn talent sur la mooy Luis Guilherme bi nga xam ne ma ngay doxal foofee ca Palmeiras jàppaleen bu baax liñ fësal mooy kakat club bi nga xam ne mooy West Ham ñu ngi ci yoonu nag dalal ko ci noonu dina amal visite médicale ci ci lu yàggul dara bu ñu soxandikoo ci Fabrizio Romano ñu wéyle xibaar ci Angleterre ek nag jàpp leen bu baax kii nga xam ne mooy Jack Grealish bi nga xam ne wóoluñu ko ba mu doon quitté nag vraiment tanière boobu. les tri layen metti woon na lool ci ñi nga xam ne voilà ay xaritam lañ comme ni nga ko fësalee ba tax na voilà c'était la choc. c'était vraiment le choc kat gisuñu kat ñu boole ko ci liste bu Southgate boobee Christophe Nkunku nag. Chelsea jàpp nañ benn jour bu am solo la seen projet benn moom lañ bëgg sumb ek sax ñu ngi ci ek la saison prochaine nag bëgg nañ wane xar bu mu ayib moom da ci bokk naam gaañu gaañu yu gàllankoor na ko ci saison bi waaye moom dana fa desandi duñ ko jaay ek kanoo gëllëg naataangoom ca Chelsea nee na moom noppee naa desandi nag fa ba ca Chelsea naam club bi ci mani Tottenham Aston Villa Unai Emery bëgg nañ ko lool waaye bu ñu soxandikoo ci The Guardian doomu anglais boobee dina desandi ci club bu Nicolas Jackson boobee wéyale carrière am

club bu mankiñe bi nga xam ne mooy United jàpp leen bu baax nag fixé nañ le prix des Jadon Sancho ku ko bëgg nag boo tegee 47 millions d'euros kat dinañ la ko jaay ndax ñoom dañoo am yéene taqalikook moom ci été bi ndax balaa nag doxalinam ak club bi ni mu bëgg ni nim ni nga xam ne moom lañ tënk ci ay règle balaa àndul ci noone dañ koy jaay naam jëlee woon nañ ko ay koppar yu takku ma ràppee ca Dortmund bi actuellement sax ñoom ñoo leen ko abal. ek ñu wéyale xibaar yi bu sukkandikoo ci Fabrizio Romano kii nga xam ne mooy Thomas Tuchel bi xam ne doon na amal daje ak dirigeant yu Mancunien yi nga xam ñu ngi na si xool ba xam nan la ñuy dàq Erik ten Hag mën ko utu jàpp leen bu baax nag mën naa ne koo kay di Tuchel nag liñ ko wan comme projet fëqul bootam ek ci ginnaaw gi sax milliardaire bi nga xam ne am na parti club boobe muy rek kilifa moom sax il a jeté mooy ko bëggul tabb benn yoon doomu almaa boobe kon mën naa ne kat. voilà waxtaan yi mujjul am tu buñ suxandikoo ji Z Time ek nag coach yi nga xam ne actuellement ay candidat lañ pour ut kookee di kookee di Green Ten Hag moom mi am na actuellement sax en vacances ndax xamagul lan mooy ëllëgam Roberto De Zerbi ciblé nañ ko bu baax a baax et que de même que certain édicteur Jules Biam mooy yóbbu Dortmund ba ci final bi de sën moo fësal xibaar boobee et que Fabrizio Romano toujours ay xibaaram yu wóor te leer mu ne kii nga xam ne mooy Vincent Kompany nag joxe na fa weeram bu ko defee club bi mooy FC Bayern la. mën a recruter portugais biir mooy João Palhinha mu mën a quitté ci Fulham waaye ci kaw ñu teg ko pour yenn club anglais boobee mi ngi koy sàkku Javier Tebas dinañu may yottali foofee ci Espagne mu nekkat compétition bi nga xam ne mooy Liga dina tàmbali 16 août mooy kat dafay soxal saison 2024 2025 muy soxandikoo ci ay kàddoom. João Félix bi mu doon amal benn waxtaan bu yaa mu ne nag dafa def ay sacrifice yu bëri ndax kat signé ca Barça loolee kat ba mu nekkee tout tànk kat lëkk mbébétoon mooy kat benn rêve pour moom ek def na sacrifice yu ne bu ko defee mu mën a ñëw doxal ci club boobee ñu teg ko ci baam bi nag taxul benn yoon dafay safoo club boobee jàppale nag mu ne noppee naa nag desandi ci club boobe waaye nag dépendre ci moom xam ngeen Atlético Madrid ñoo tegoon ay koppar yu takku jënd ko kon ñoom kat ñoom ñoo ko moom ba léegi waaye nag li leer ba leer mooy que son projet clair leer na nañ moom dafa bëgg desandi ca Barça ndax ku safoo club boobe la. Kylian Mbappé liñ fësal mooy que noppee naa dakkal ay vacances am ginnaaw gi Europe bi ak fuñ mënti yam mu rejoindre club benn mooy Real de Madrid ndax dafa yàkkamti dafa yàkkamti kat tàmbali carrière am ak club bi nga xam ne moom la yàgg rêvé Diario AS moo fësal xibaar boobee ñu wax AS lëf foofe ci Arabie Saoudite club bi nga xam ne kat mooy na Nassr commencé nañu waxtaan yi pour recruter kooki di nit bi nga xam ne jàpp leen moom mi nga xam ne dina bawoo ca Juventus de Turin comme ni ñu ko fësalee ndax Juventus noppee nañ koo jaay bu ñu soxnikoo ci kayitu xibaar yi waaye nag ci kaw ko teg 18 millions d'euros kon club bu Sadio Mané boobee ak Ronaldo bés bu ñu ko tegee kat dinañ mën a jënd portier polonais boobee waaye jàpp leen nag ndogal bi aussi dafay aju ci moom ci kaw mu neex mu utali foofee ci Saudi Pro League Thiago Motta dina signé son premier contrat et que comme ni nga ko fësalee ci mardi bi wala mercredi bi nga xam ne moom la ñu dugg jàppaleen contrat bi dana dem ba 2027 bu ci xibaaru Fabrizio Romano la Gazzetta dello Sport mu nekkat superviseur kat ñu ngi ci yoonu dalal kooke di Mason Greenwood xam ngeen ne United aussi. voilà naam woole boole nañ ko seen effectif voilà jeunes yi am na ñoom dañ leen di conserver waaye nag waxuñu moom mën na fa doxal pour la mën nañ ko jaay. bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi Fabrizio Romano agent bu Federico Chiesa bi mooy Fali Ramadani dina wutale ci italien début de la semaine prochaine bu defee mu mën a waxtaanee option yi nga xam ne dinañ ko teg nag ci table pour ëllëgu ailier italien boobee. Juventus nag muy suxandikoo ci Fabrizio Romano mën nañ ko bàyyi mu dem ci kaw ñu teg benn proposion bu mucc ayib ci ay koppar contrat am nag dafa war a jeex juin 2025 ñu jeexalee suñ jonte bi nga xam ne moom la doon amal face au Mourabitoun kii nga xam ne mooy Aliou Cissé en conférence de presse mu ne xamoon nañ contexte bi nga xam ne voilà nag moo ñuy xaar foofee ci Mauritanie lu jafe lay doon ek nag voilà ñoom dañoo ñëwoon foofee ñëw ñu foon di def spectacle joué di boor football wala boog pour impressionner ci continue bi nga xam ne comme Sénégalais yi bëri noonu lañ koy sàkkoo ci kii bu. équipe bu Aliou Cissé boobee jàppale nag mu ne objectif bi nga xam ne nag moom lañ amoon mooy ko ñu remporter trois points yi kon lool dong moo ñëbb woon foofee ci Nouakchott ek jàpp leen mi ngi saluer di jaajëfal bu baax prestation bu am bi nga xam ne mooy Gana Gueye mu ne nag c'est un bon leader ek nag li nga xam ne moom la doxalee nag lu mucc ayib la ndax moom mi ngi ànd ak ay jeunes frères am di leen accompagner ci milieu de terrain bi Pape Matar Camara pour, pour leur cité et que def na ma si bu rëy rëy nag sur le plan footballistique ek nag mentalam kenn du moom non seulement Gana Gueye sur le plan individuel il a été vraiment présent et que mi ngi ay e jeunes joueurs yi ci Lamine Camara ak ñi nga Matar kon expérience am kat la leen gungee ci terrain bi ak ndimbalam et que moom pour rappel 112 sélection kon milieu sénégalais boobee vraiment reste infatigable comme ni nga ko fësalee ci kayitu xibaar yi ak comme ni ma ko fësalee mooy que saison bu baax bi mu terminé foofee ci Everton moom la indaale ci tañeer bi kon loolee li muy firndeel mooy que suñuy joueur l'ont ba joué de temps de jeu ndax xam ngeen ne Gana Gueye ba mu am wér de temps ba mu amul woon temps de jeu mais gars yi ci tañeer bi kenn du ko daan ba tax critique yi di bawoo fu nekk. critiquer nak comme nga mooy équipe nationale fekkee nag en tant que carte ju dugal la wane woo sa vraiment Sénégal duñ hésité benn yoon dal sa kaw ndax équipe nationale comme nga waxee ñëpp bëgg boo ko eka sottante Sadio Mané na di la bañ Sambalar muy toj Liverpool performance ci bi sénégalais mooy ñu koon dara mais après voilà gis nañu résultat yi kon Gana Gueye toujours foofee lañ koy xaare mooy ko top performance ndax kat na ci joueurs yi gën expérimenté yu am vécu ci bi kon moom xam li nga mooy porter le tunique de l'équipe nationale du Sénégal. ginnaaw gi jonte bi ci kàddu mu ne match bi amoon na ko Faso Congo loolee dañ koy fàtte nag ek nag match bi moo ne woon bor bi kon loole voilà mujj na antu nag ek voilà le plus important mooy que kat ñu gagné ek naam bëggoon nañ am plus de maîtrise ci jeu bi ek voilà marqué prise de bi waaye nag vraiment kontaan nañ lool ci ndam li mu ngi koy xamale en zone mixte. waaye ki nga xam ne mooy Aliou Cissé ak système am mu bëgg ñëw forcé nag mu convoqué ay joueurs sans retour loolee ndaroon na ko indi jafe-jafe nag waaye nag bilan bi est positif sur six points il a eu quatre rien waaye ku ci mën ne Moussa Sarr bi nga xam ne voilà il fait des analyses pertinentes sur sa passe ne nag dafay réitérer ay kàddoom Cissé nag vraiment dëgër boppam boobe nag nañ ko ko wax ak système bi dañoo bëgg forcé malheureusement nag amul jour yi nga xam ne voilà am nañ profil boobe pour doxal. naam gagné nañ de waaye convaincre ñu kenn kon lañu war a jointi nag moo moo war a bëri ak équipe bi nga xam ne moom lañ doon jàmmarlool sax di nga xam mooy Mauritanie vraiment n'est pas une équipe bi nga xam ne voilà war na ci am njàqare naam benn contexte de derby la woon. kon li nga xam ne kat moom koy yóbbal moom miin mooy Aliou Cissé bi nga xam ne ñu bëri ñu ngi dal ci kawam lu ci mën a Cheikh Gomis bi nga xam ne nee na Aliou Cissé dafay demee. ak ay idée boppam kon ña ko wër ban njëriñ lañ am ci ban boobe jàpp leen nag moom fa mu rectifier la tiit nag ndax vraiment dañoo bëgg delluwaat ci mondial bi am ne Sénégal voilà wóorul de sa rendez-vous bi nga xam ne mën naa ne du Sénégal dong de waaye Afrique dañoo am yaakaar ci génération bi nag mondial bi weesu demoon nañ ba huitième de finale et que voilà mënoon nañ gën a sori waaye malheureusement. et que pour rappel sans Sadio Mané kon mondial 2026 boobee dañ cee war a dem et nag 2026 ça ans et que avec des jeunes joueurs yi nga xam ne dinañ intégrer ñu ubbi leen tanière bi kon Aliou Cissé ubbi ay buntam pour ndaw yi kat bu ko defee nañu expérience à la jeunesse ñu mën a doxal def ko benn fusion. et que nag jàpp leen bu baax kii nga ne mooy Habib Diallo sur l' ensemble des deux matchs vraiment positif. moom moo ne la plus grosse satisfaction de cette équipe comme ni nga avec son rôle de piston bi nga xam ne vraiment dina ko jouer parfois nag foofee ca Strasbourg waaye nag montré na ay qualité benn jour bu vraiment bu déterminé la bi nga xam ne dafay dem ba jeex comme may à moment donné nag bu sonnee mën a bàyyi comme ni nga gisee ci premier match bi loolee nag li ñuy mooy que voilà équipe da ngay ba bu riche et que Aliou jour yi mu demee ba sonn voilà nag mën nañ bàyyi ak contre Congo noonu lañ encaissé but bi waaye nag ci ñaari match yi rien à dire respect ek nag kii nga xam ne mooy Edouard Mendy bi na vraiment il nous a sauvé nag ci match bi moom la ñu doon am façon mu rabitoon avec ses arrêts décisifs kon top performance du portier de al ak lii est que vraiment c'est scandaleux comme ni koy wax mooy ñuy joué ci ay terrains synthétiques voilà war nañ niveau boobee rawatina fa fay ci Cheikh Ould Boudia bi nga xam ne stade benn suduroon nag la ko Mauritanie yi defe woon jàpp leen bu ba à moment donné sax doon nañ sànni ay ay ay li nga xam ne mooy ay butéel ay jet de projectile Sénégal nag liñ leen di liñ leen di baaxee donc mooy que Sénégal loolee ñu lebal na doon lu baax ku wet di laaj ñu joué ñoom ci benn terrain bi am na balaa kaaf wuru ko sax homologué demuñu si ñuy sànni ay ay ay projectiles loolee kaaf war na leen teg ay sanctions yu diis ñoom ñi nga xam ne ñooy Mauritanie yi am ne bu ñu xëy naan ay pays voisins alors que ñoom kat ñu ko waxewuñu ko. et ñu jeexale avec le tackle assassin de Khadim Diaw sur Habib Diarra est-ce que ñii dañu doon fay ko bor wala lan la vraiment on a senti que ñi nga xam ne voilà nag ils ont ils pour. pour les Mourabit alors qu'ils ont déjà joué avec le Sénégal comme si voilà nag dañoo amoon bor bi am dañ koy fay ko Sénégal ci wàllum buuxante yi naam ci football la bokk À au moment donné il dépassait les bornes avec des fautes yi nga doon nañ ko multiplier vraiment il devait revoir leur comportement ndax dina ñëwaat ci réew mi et que képp ku nga xam ne ñëw nga ci réew mi nag bëgg nga xaj sa koñ et que nag voilà football nag war a ñëw xaajaloo kii nga xam ne mooy Khadim njaw taakal bi xam ne def na ko Habib Diarra mënoon na dakkal carrière wu l'international sénégalais waaye heureusement heureusement que ba mu paree yenn ay bekk dox kon voilà nag xel mën naa dal ci kookee di Diarra et pour jeexal kii kan mooy Formose Mendy bi ne sax moo remplacé Habib Diarra ginnaaw gi ba mu gaañoo Varane nag nag niveau des na lool ak fi ñu koy xaaree avec les lions de la Teranga et que comme ni nga ko mooy que balaa comme bu fekkee compétitif nag nañ ko mettre à l'écart ndax balaa nag doo koy mettre en mal avec les sénégalais am jour la bi am ci réew mii lañ ko formé waaye vraiment nag niveau bu muy fubalee nag am nañ ci njàqare.